waaw ah, kon ñu ñu wéyal dañuy bañ vidéo bi bu déwee gàcc moo tax ñu koy ñu koy dagg lii tamit gis ngeen ko waaw ah, mooy bunt yi nga xam ne bële moo ko ëpp ci bunt yu yem yi ci la bokk liggéey bi daal mi ngi nii taaru na taaru xam ne mënu leen koo xam ci vidéo bi waaye lii moom wallaahi la asin képp ku ko teg bët jàkkaarloo moom danga xam ne wax dëgg yàlla ah dañuy indi war ma waaye amu fenn gisuñu ko fenn liggéey bii moom man tegu ma ko bët ca Màkka tegu ma ko bët ca Madina tegu ma ko bët wax dëgg yàlla feneen liggéey la boobu buñ ko montee ku ko gis ci yéen sa xol dana set lii moom euh, bëgg nañ ci lool barke Serigne Saliou Mbacke kon nag ñun ñoo ci des muy xaalis bi liñ jaayante woon ngir jëmmi Serigne Touba gars yi na suñu yaram daw na nañu yëngu nañu xam ne jamono metti na lool waaye Serigne tubaa xamut jamono sëñ Serigne Abdoulaye Mbacke woon na Serigne Touba xol yi ñoo ko nangulul nawet bu nangu xamu ko xol ya nangul sëñ Tuubaa kon nag ñun li ñu yor jaay jar na jaay sa tele jar na jaay sa téléphone jar na dem lebi ca banque ba jar na lijjanti kenn ku ne am na loo man kon yéen waa Afrique du yéen waa bitim réew yéen waa senegal laxasaayu leen liggéey jot na kat buntu sëñ Tuubaa yaa ngi nii ñu ngi fii ci Turc maag Serigne Cheikh Kane mi nga xamante ne nii Sénégal la nekk nekk ca liggéey ba di di di ko saytu ànd ak technicien ya mu xam wàllu fer xam wàllu matériel moom la ñu àndal pour mu respecté ko xool ba xam ndax bii lañ leen commandé moom la matière bi baax na wala baaxul xool na lépp nee na lépp tegu na ci yoon lépp baax na kon ñun ñoo ci des